lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara nuurun ala nuurin min nuurin yunawwiruna maam waaw bu soo ko jur mooy jaaratullaahi nuurun ala nuurin min nuurin yunawwiruna maam waaw bu soo ko jur mooy jaaratullaahi nday jaadi baayam ci seen askan baayam it di ndayam mu donn baatin ba ak zahir sabillahi ndaw leer ci kaw leer ba leeru soxna wa sosoob ci leeri askanu sun maam jaaratullahi leer gaa nga jolleer bu soobee kulli man yaxtamatu xidmat Seexul Xadim ñi nga xam ne moo leen yar ak képp ku namal liggéey Seexul Xadim ñoo daje fii léegi nag mu jox leen liggéey bi saytu ci di leen ko saytuloo wàllu siyaare bi wàllu yére yi teen ba appartement yi waaw ñi xam ne nag ñooy soxna yi di fi ñëw di indi seen i addiye seen siyaare ngir euh, sakku ci soxna si ngërëm ak xéewal ñoo fi ñëw di di yónni yére yi yére yi ñu ko saytuloo gis nga seen oto baa ngi nii gis nga niñ ko def buñ ko joxe ñu nangu ko takk ko ay takk ba mu yegg dugal ko ci oto yi di ko yóbbu ci magasin ba saa yu ko saytoo ba noppi na ba maagal jàgg jàll ñu tëj magasin ba jot sëriñ Basiru Poroxaan mi nga xam ne moom sëriñ bi euh, liggéey bi caabi ji moom sëñ Moussa ñii ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di siyaare itam di góor di jigéen di mag di ndaw ñu leen di sensibiliser maanaam di leen teg ci yoon di leen dimbale di leen teete ba kenn ku ci nekk la nga bëgg nga mën koo am te doo am benn problème ndax fi ne euh, doomu aadama ba bari waaye bokkul waaye kenn ku ci nekk sa jukkoo ak sa comportement ak sa melo boo fi rek ñun xam ne ni ñuy def ba ànd ndax ku ñu yar moom mën ngaa jaxasoo ku ne ku ñëw rek da nga mën a lenqeteeg moom ba teg ko ci yoon ba mën a siyaar ci barab bi mën a siyaare teen ba mën a dugg bëgg dugg te doo am benn jafe-jafe loolu nu fi bi tegee. ñu nekk ci loolu nag di góorgóor suñu kéem laay kattan ndax ñu fi ne ñëpp seen baay ak seen maam dañoo àndandoo sëñ Basiru ànd ak sëriñ bi seeni i baay jël leen jox leen sëriñ bi ñoom ñu mottali seen pas-pasu waajur ba ku ne sëriñ bi gërëm la soppi la sa liggéey ndax muru moom du wàcc waaye dañuy soppi sa liggéey yóbbu la beneen anam ngay liggéey kon loolu mooy soppi bi ma war a liggéey léegi nag ñooñu ñoo dajalawaat def benn daayira muy kuréel bu mag jëbbal sëriñ bi seen bopp ne lool loo ñu digale te ñu def ko loo ñu tere nga bàyyi comme ni ñu nekk woon ci daara ji boo amee lu muy liggéey loo woonu su fekkee liggéey loowu nag ñu dellu ci itte ak di dajale suñuy suñuy addiya di ko yóbbu kon ba tey loolu moom moo sabab lii kon defe naa ñi fi nekk moom war nañoo mën a jaxasoog doomu aadama ku mu mën a doon rek war nañoo mën a wax yow war nañoo mën a lengante yow bala nga bëgg nga am ko te doo sonn doo mer doo am benn jafe-jafe loolu moom parce que nga xam ne moom moo fi nekk fi mu nekk moom ci ci leen fas yéene bi it di ñaanal sëriñ mu yàgg fi lool te wér ñu itam ñu yàgg fi moom te wér ak mboolem murid yi taalibe yi waaw du nekk sax ci liggéey Sëriñ Tuubaa rek sax ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ndigalu Sëriñ Tuubaa waaw saxaar yi ak wataraay ak roppalaan dana ñëw Tuubaa rek sab liggéey maam jaaratullahi robinet yi walangaan kër sa fi dër jën yaa ngi am daaru rahmaan jaaratullahi citerne yaa ngeeg trawo yi di saf dexi ndar diggante mbàkkee ki tuuba diggante mbàkkee ki tuuba jaaratullahi. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam ñu fàttalee tur bi ak sant bi ñu gis sa teewaay ci dëkk bu sell bi di Poroxaan nga jëm si. wutukaayu ndox bi muy teen bi lan moo waral sa teewaay si dëkk bi tey. xanaa ñëw siyaare soxna jaar rek maa ngi tudd Fatou Mbaye dëkk Touba siyaare soxna jaar bu sa borom Porokhane rek te teen bi dama bëgg dem te teen ba wut fulaar foofu lu ma see lu ma bàkkeeroo. kañ ngeen kañ ngeen kañ ñëw si dëkk bi. biig ci guddi démb. démb si guddi mu mel ni gis nañu cofeel gi nga xam ne soxna yi am nañ ko ci soxna soosu. ndax euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi góorgóorlu di topp jikko yi ku tedd kooku di Soxna Jaara waaw ñi ngi di topp luñ ci man rek di ko def daal di ko góorgóorlu fi fi ñëw boo ñibbee di nga gën a toppaat yoon wi fàttali ñu tur bi ak sant bi ñu gis sa teewaay ci dëkk bi lan moo ko waral ndey xuma laa tudd ndëkk mbar ñëw fii ki dëkk maam Jaara Buso bi xanaa nag bëgg maam Jaara Buso bëgg sëñ Tuubaa ak Seex Ibra rek waaw màggal gi nag ñu xam ne jigéen a ko waral góorgóorlu rek fas yéene mel ni maam jaara bu sa wala boog ñu roy ko ba mel ni moom ndax dañ koo sopp lool fas yéene sax ci moom dàkk barke maam jaara bu sa jigéen ju nekk war a ma roy ci moom. macha allah kañ ngeen ñëw si bis bi màggal. waaw ñëw nañ démb ci ngoon lañ ñëw. mu mel ni comme ni ko waxee woon ni nga ko waxee léegi roy ci soxna jaara. mu mel ne jamono ji ñu toll jikko yi xaw naa doy waar lool est-ce que ndaw ñi ñu ngi jéem a adapté jikko yi soxna soosu di soxna jaaratulla waaw loolu laa leen bëgg a wax damaa bëgg a wax ni leen man nga war ngeen bis bi ku ci ñëw nga war a mën a xool ci maam jaara bu baax a baax a baax a baax ndax maam jaara liggéey moo ko may lii mu am waaw kon kuy ndaw rek war ngaa mën a xool ci bis bi roy ci maam jaara Bousso ndax ñun ñëpp war nañ koo roy ndax moom liggéey ko may lii mu am lan eh, lan moo la gën a neex ci soxna si soxna jaara taalibe gi mu am taalibe am ak eh, xol bi mu am mu toj ci liggéey moo ma gën a neex ci soxna jaara te man suma sañoon soxna jaara ni mu meloon ma mel ko ndax man ku ŋàbbu téereb alxuraan rek sama xol day sedd te moom dafa bañoon ba yor ay daara moo tax mu am daara yi man bu ma gisee xale bu ŋàbbu euh, téere di ko jàng sax sama xel day dem ci soxna jaara te xam ne rek moo waral lii moo tax sama doom yi ma am yëpp su ma sañoon ñëpp jigéen la ñuy doon ma duppee leen soxna jaara. boobu cofeel màgg na jërëjëf yaa booy. ah Porokhane de xéewalu Serigne Touba ak maam Jaara bu sa Porokhane moo ñu ko defal moo ñu yaatalal ñun ba jigéen ñi yaatu lool ñuy sant rek di yàlla ñaan yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem. maam jaara nag amuñu fayam maam jaara moom amuñu fayam jigéen ju mel ne moom ñi neexu la roy waaye nag lépp moo ñu ko defal rek sant sëñ Tuubaa rek nag sant di ñaan yàlla dool li xéewal gu baawaan saawaan xéewal gu soxna si gis nañu gis nañu jamono ji fi mu toll jikko yi xaw naa doy waar lool boo doon digle ci ñu war a roy soxna jaar lan ngay digal sa doom yi nga xam ne ñoo ji ah góor góorgóorlu rek doon Baay Faal muritu Baay Faal waaw ah, doon góorgóorlu rek doon murit doon Baay Faal ah, topp sa ndigalu sëriñ ku bëgg a roy maam jaara moom di nga def ni mu doon def royukaay la xool ci moom roy ci moom rek moom la ñuy digal suñu njaboot gépp waaw ah, ndax moom kenn mënu koo roy dañuy jéem rek. salaamaaleykum soxna ñu ngi lay bu baax bàyyi la nga nuyu ak mbokki téléspectateurs yi wax ñu sa tur ak li waral teewaay bi si dëkk bu sell bi tey. xanaa kontaan ci rek di ñëwee maam jaara ak waa këram teefaay bi rafet na sama xol dafa sedd nag moo tax mënu maa wax. salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu bu baax a baax soxna si di la siyaare bàyyi la nga wax ñu sa tur ak sa sant ak li waral sa teewaay ci dëkk bi tay di Porokhane. maaleykum salaam maa ngi leen nuyu di leen siyaare yéen tamit di leen jox seen waajuwaay bés bi lu ma fi indi woon mooy man soxna jaara laa tudd soxna jaara cuun maa ñëwoon Porokhane nag pour siyaare allah mu mel ne ñu tuddee la soxna su sel soosu di soxna jaaratullah lan moo la gën a neex si ci sa jëmmi turandoo li ma gën a neex ci moom loolu yëpp moom bari na wax dëgg yàlla di ñaan yàlla kay mu may ñoo ñoo roy ko ñu roy ko ba jéem a mel na moom daal loolu la ñaan yàlla daal mu defal ñu ko da ngay digal sa mbokki soxna yi ci ñu jéem a adapté jikko yi ku tedd ko xanaa li ma leen digal ñoom ñëpp ñu jëm koo roy yombul nag moom ndax def lu baax yombul mais nag roy ko tamit ba mel ni moom yombul mais ñu do jéem a dox ci ay tànkam daal loolu buñ ko defee yàlla mën nañu cee jàppale. alal muxtaari lillahi maam Samba Jaara Mbay neena maam Samba Jaara Mbay neena min alamaraati kawnul ummi aabidatan mutihatan rabba fawqal mutihaati min alamaraati kawnul ummi aabidatan مطيعة ربها فوق المطيعات مطيعة ربها والوالدين لا لكونها فوق جارات وجارات قد أحسنت gannaaw boo ñu waxee sa tur ak sa sant ñu gis la tey ci dëkk bu sell bi di Porokhane lan moo waral teewaay bi si soxna si. mooy nu bëgg ko ba mu jeex man sama taaw ñu ko tuddee làmp paa ki ci topp Serigne Saliou euh, ki ci des maam jaara bi waral bis bi li tax mënta ñëw at mu jot day tombeek muy jàng ci compo yi kon yàlla naka turandoom wàllu waaye muy maam jaara dama koo bëgg ba mënuma koo fay kon soxna si li mu am yàlla na ko yàlla yokkal euh, te ñun ñi yàlla nu si barkeem te nu yàgg di ko at mu jot bu nu ñëwee day gën a yokk te yéen da jëm kanam soxna jaaral yàlla ko yàlla fayal boppam ak sëñ Touba ak maam Seeraay ma Fall ak sëñ Cheikh Fall ma war muy sunu sëriñ yàlla na nu yàlla fay. mu mel ne soxna si gis nañu lu rëy li mu am nga xam ne mel moom donc moo ko am li ko ko may nag muy jikko ju rafet ak liggéey bu mag lan ngay dénk mbokki soxna yi nga xam ne ñoo ci toll ñu mën koo royee soxna Jaaratulla xanaa nu fas yéenee jéem manu man du nu mënul lépp tamit nu fas yéenee jéem ba roy lu mel ni moom yàlla may nu nu man man la mel ni moom ndax kenn ku nekk rek booy ñëw fi war ngaa fas yéenee mel ni soxna si ndax soxna si li mu liggéey moo ko may lii kon nag comme que li mu liggéey moo ko may li ñun tamit nanu jéem ba yàlla may nu lu mel nii xam naa mënuñu koo am waaye nu jéem rek waaw. lan moo la gën a neex si soxna jaar. li ma gën a neex ci soxna jaar sàkket bi mu tëye taw bi taw ci kawam xam nga sunu classe gi ku nu waxoon ne téye leen ma sàkket danga naa man duma fanaan ci taw bi. waaye kon soxna jaara li mu nangul maam Mor ya ak sëñ Touba ba am sëñ Touba yàlla na ko yàlla fay loolu rek na ñuy ñaan ñun ñu nga jógee ba Kër Moussa ay soxna jaaratu laay ñoo ko bëgg sunu xol bi man lu ma def si maam jaara nday faama jug dëkk Kër Moussa bismillahi rahmani rahim wa wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman man sant lillahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kaña nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maryaama jaaratuna kon ñëpp jaari jahim tey jaaratullahi salaamaaleykum sëñ bi ñu lay nuyu bu baax a baax di la ziar ginnaaw boo ñu xamalee sa tur ak sa sant ñu fekk la fii si dëkk bu sel bi di Poroxaan waaye itam si teen bi mu mel ne bokk ngeen si ñuy saytu liggéey bu am solo bi nga xam ne moo fi am naka euh, la liggéey bi di demee ak euh, organisation boobu noonu ginnaaw boo ñu xamalee sa tur ak sa sant. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ko delloo. di leen dalal ci barab bu barke wax ni muntaxaa gi nekk Tuubaa Daaru Tanzil daara Seex Muntaxaa comme ni ñu ko waxee léegi rek liggéey bi nga xam ne yéen a koy amal fii si teen bi nga xam ne daanaka li ëpp si mbooloo mi màggal si dañ fi ñëw di wut ci ndox mi organisation bi tam day mel ne yomb na yombul naka lay demee. waaw teen bi de ndax day mel ni ku ñëw baraxaan da ngay yónnee am ndox moo xam ne moom ngay yóbbu ak sant yàlla la ndax barkeelu la organisation bi de mën naa yomb mën naa ñàkk yomb ndax tey nii. day ne rek mbooloo bu xësee ba ñëw te bokkuñu ay xeewanteef ak kenn nekk ak jikkoom waaye nag yàlla defal na tawféex yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi miin nañ ko ba seen xol ban na ko attan daal kenn nekk jikko joo fenn rek mën nañ ko tolloore ak yow ba li ko bëggee incha am na solo lool lay teemaa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmmalul boppam soxna jaara